Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Fuyep, yep, sommes ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yo sell naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi bi pinac. oh. oh dina yok sen katan bolé si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo accident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nak si emballage yu civilisé Tour. ak jus vito da am choix te ñu déféré ko ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison

man nag dama am benn soxla soxla keroog laa la ko bëggoon wax sax mais dama ko fàtte mhm. ndax sama anniversaire dafa ñëw waaw et puis lii laa nam ci yow man sama dara yombul dama bëgg lu rëy man bëgguma dara lu yomb man nay tar rek na sadik man man damay bëgg damay teg yu xotteeku yu sadik loolu daf may neex de. non man nii man lay neex. kon baax na. dégg yow loo joxoon ma dagg nee naa la yow man ak yow picc ak peel bu ma yërëm. léegi nag ñuus ma dee ma des fois xoolal nga sëggal ma rëq ma eh, matt ma gajj ma dafa loo saf. waaw baax na. léegi nag. waaw dama war a invité samay copines. loo xew la yow. Ah, anniversaire dama wara a wut yére dàll waaw gâteau lek yek nani waxi nopp defar sama bob quand urgence Sénégal li moo tax duñ dem quoi Sénégal dina ñi xëdem yu yak la yi jigi xale yi jigéen ñi te ngeen a bàyyi loolu yéen bu ngeen di def anniversaire muy lu mën mënti doon bu ngeen ko sinabul hein ah, sine nga tobi estati woo leen ko pour yéen seen programme baaxul ba leen yooyu Sénégal léegi tollatuñu foofu xam nga lan moo xew anniversaire u intimité man ak yow ñu dund ko ma xàppi la bés day woyal la nga ëf sa nga to ñu continuer li ci des jàmbar dama ne law may doyee ak fan nga jëlee sama numéro non non non mareetu moo ko jox mareetu moo ma jox sa sa numéro téléphone ma woo la mareetu moo ko jox mareetu moo ma ko jox

nee naa ko na na nga bàyyi Bira si biir kër gi bul ko lijjanteeti waaw yow nekk si biir kër gi dafa lu la neex loo manqué si wàllum financement ataaya ak cigarette woo ma téléphone waaw ma envoyé la nga mën a am dara waaw nee naa ko na la bàyyi si gàll bi muy dëgër bopp ah jot naa ko fee nag loo tal ndax yow waaw jot naa ko wax wax yu mitti waaw duma ko duma yu mitti waaw ndax yow ndax dama ko ni bàyyil Bira si biir kër gi. muy jéem a jaay sari mu soufflé ko tak na la bàyyi si biir kër gi sinon rek ma ngi mom suñu sey bi mom dañ koy annuler na la bàyyi si kër gi yow da nga wara a ci si kër gi yow way yow moy kan ba yow do nek si kër gi way da ngay nek si kër gi yow xolal bu la bulu xataalee wala nga laaj ko tari ci biir kër gi joxu la muy lu mu mënti doon ma téléphone. mën nañ koo féete entre nous man ak yow Sénégal jëm kanam France jadd état li def nii. Amérique moom waxi noppi. léegi mën na nekk. voilà. loolu daf may neex. mais wuy ma waxal. ñetti yére laa war a sol. ñetti yére. yére yeeg dàll yeeg lekk yeeg naa ne du ma ci teggi benn sama copine yi kay laay off ba beneen. yaa si ndaa meen déggoo ma yow. léegi affaire bi na xool euh, cent cinquante mille la. cent cinquante mille la bariwul. fanweeri junni. yaa sa budget cent cinquante mille fanweeri junni. ah daal lii fàtte woon naa ko. Eh, yaa ci tegaat eh, nag wuy ma yaasin nag am na leen loo xamante ne nii wuy ma fi ma fekk la yow. man apporter na la lepp ubil na la buntu yi waxoon na la ko sa commencement mais da am yeen yo xamanteni faaw nga wañi muy ma budé sa anniversaire dina neex to yoyep duñ ko def ñi la defal war defal vidéo dina len wo ligue après ñu defal la vidéo. am naa ku ma defal sama vidéo. Eh, jox ma xaalis ba. rek eh Abdourass da lay defaral vidéo déedéet bëgguma. Yves Niang du la defar da vidéo. Hein? na ah. Wa, na. waaw yow pippé ma rek wala nga def am envoyer message waaw. man ma woo ko tegal ko lu xottee ko lu mel ni midi doful dina jàpp ko moom xam na bu Saheb eh wax ji mu ngi bëgg a bari gis nga li nga def maroo toog li nga ko wax li jëntiw ko mhm, mhm. xamalan la mhm. li nga may doyee laa bëgg mu doon ful waaw nga bàyyi sa kebet mu bari bi justu loolu dégg li ma la justu loolu waaw noonu la demee nag loolu la rek li ma la wax léegi li ma jot a wax loolu la loolu nga ma doon doy wër na yàlla loolu la rek billaahi billaahi je loolu kese la. kase kase kontaanoo si li ma wax ma mareetu moom. loolu lijjantiwu ma ko et puis. Euh, waxal la neex yaa à provence. pardon. ci cadre bi nga waxee noonu. am naa lu ma soxla. ah lan la. dinaa jaar sa gaale tegal la ko. Ah. waa ji kii ñàng na di xool ni muy waxee rek laay te waxam bëriwul wuyu nii la wuyu bandi bandi waxam du bëri waaye xool waa ji lu taf-taf ko xool xoolal si kii kay damay xaritoo moom xool waa ji ni muy waxee man tax xool la daf neex waaw xoolal wow ah laay laay la sa të të të waa ji téye téye téye téye sadik waaw waaye di di di bandi. wow. xool eh sa waxtu ba sii. joo. waa ji. yaa. xool ko ni muy doxee. xool ko ni muy li may wax moom ak yëpp man sax li mu génn woon keroog keroog mooy 37 da koy génne. laa. kii de du ma ko du ma du ma sax. kii kii bàyyi naa def nii ba mu dem moo doo ko dem wóorul. Abdou Jumalo. déedéet. Jali Fatou Mbaye. waaw yow métti nga de. waaye ñun ñëpp ma leen waxee ñu dem. yow jox ma xaalis bi rek. Dera nga xamante ni temps moo xew. waaw yow bëgguma. léegi xam nga ni def léegi je sapte naa la ko waaye nag wi ma. boo demee nga waxtaan ak sa ñebe jaay nga wàññi budget bi y' a pas problème man je gère man dama laa bëgg je t'aime I love you fii laay commencé tax anniversaire bi happy birthday to you. baax na merci ah. merci baax na. commencé ko fii. wallaahi jël ko. waa léegi yow daal euh, taxawal rek ci xaalis bi parce que affaire bi ginnaaw suba la. ginnaaw suba et puis am naa ci yow yaakaar trop. cent cinquante mille moom naa ci taxaw moom ok maa ngi ñëw dem hmm. <laughs> dina xam man la ko sekkal cent cinquante mille mu naan des na di si teg ay di mille ut ci sooful kaa yaa ngi démarré nag man yaa si mii xaw ma fu ma jëme keroog cent mille la ak yeneen ak yeneen cent cinquante mille trois cent mille daa mel cinquante mille moo ci des projet bi nag jàpp xamoon naa ni projet bi man li ma koy wax rek nee naa la projet bi da cee bokk nga yàlla baax baax est-ce que xam nga kookal la non mais yéen da ngeen di for ok xam nga yéen da ngeen na wow nday gat ku leen wax doo leen ko dégg kii xam naa ko bu baax parce que am na fu ma jaar ak moom parce que Bira il est dangereux non kii dafa dangereux bu leen dugg ci loolu xam nga yéen da ngeen a dëgër bopp seen gat yee wow bu leen nit ki waxee doo leen ko dégg ok baax na duma ci waxaat amul benn problème man ñoo xam ne chaque jour ci ay problème yoo xam ne lañ may dugal man. kii fan laa jëloon moom. Eh? Eh? Ah, ça va ça va si jàmm. ci loolu yow kañ nga ñëw. ñëw naa démb. eh Dakar neex na de. non daa feeñ ci kanam wi. Ah, yaa ngi cool. da nga yàkkamti nii. pardon waaye ma am na ma la laaj rek. Ah, du ndaw non jàmm la rek. mais sinon nag. ça va. mais à part ça. naa ko mu. cool naa yem jàmm. waaw toujours comme d'hab rek yaa ma gën a xam. mais manqué nga woon gaale bi nag. non je te le yow naa tey jéem say jaay jaay rek ci biir gaale bi. dégg nga non la. da ngaa bon tooñee non la fa demee. mais cool. cool waaw mais man daa am mm, sama benn eh, sama benn rakk ju jigéen. waaw xam nga kooku la ñoo sonal. mais ñoo koy defar. mom moom dañoo sonal lepp nak suñu lako wék quoi mais kat la mom dal moy def anniversaire. anniversaire waaw moy def anniversaire mais budget bi ma wax dal la bëgg xol ba xam lolu xalé yi jigéen yi jamono yi mom lañuy défé anniversaire comment dire dal mu bëggon dal am ci lu leer nga xamante ni lolu la koy mëna jox nak mom sama jo door kat la day mom door kat la pour mom ñun banque lañu yor. ande bàyyi. tey kan laa war a dem dóor sant bi soxla naa de waaye nag comme président da koy woo ba sonn doo ko jot c'est gaynde yow da nga da nga jot booy ak grand bi yow jot de président yi sax yaa leen gën a seer non demeewul noonu <laughs> waaye bàyyi loolu waay waaw waaw gisante nañ gisante nañ mais après jox naa ko wàllam waaw man ak moom moom <laughs> loolu mais keroog sa xol sedd na voilà keroog mool six laa la jox tey nag mool dix huit laa la indil 22 ans 23 ans mais 23 ans décembre bébé, moi, mooy tax 23 ans hein. ah. d'accord ay mhm. mais nous sonal. ah Waouh..! mais daal 150 la ñaan. 150 150 000 waaw. pour l'année non. pour anniversaire anniversaire Oui, toi. anniversaire rek dépense 300 000. 350 150 000. merci jugal jugal jugal. wax naa laajoo ma maa la doon laaj ma jugal yaa ma woowoon de jugal ma mu may kii kaa yaa ngay dem kii day kii jarul woon a woo kii na ma problème kon xal kii kon Yacine daf ma yërëm laaj ma xam na ni damaa nay moo tax mu laaj ma loolu kii ma yaakaar ay cinq mille lay wax <laughs> mool dis laa la indil booy ki nappee ma ko ci jënu <laughs> ci géeju kii yi de ci booy ta waaw ca jàbba jalba laa ko nappee booy xale bu set neex mool mo déggoo ma la wax instant bi loolu ci yow la des man saay amul lenn xoola li gën a dee yow wa noonu la demee nag noonu la demee li xam ñuy def demee naa jaar sa gaale ma ñëwee après ñu teg duma la fausser ñoo far on est ensemble tey sama waa ji <laughs> ok d' accord ok d' accord on est ensemble yaa partenaire talaatuma ko sol mais looy teg nii ñëwuma ne la woo la ne la saala nee na na biraa génn kër gi ba ma dem ci sama ndijaay sama ndijaay d'accord na sax nangu na nee na dina fa ñëw moom dafa bëgg xaalis saala tourné waat encore ne biraa bu mu génn kër gi loolu loo ci xam nee na biraa bu mu génn kër gi bu génnee kër gi sëy bi dootul am moom instant bi moom xamatuma fu may féete waxi biraaw ak moom nañ ko gas ba mu xóot suul ko eh li ngay wax nii tegul de yow nan nga mën a ñëwee sama gàlle tegal ma situation bi man la man dinaa la si jàppale ma def samay effort ba am ku ma gis wax ak moom amul delloo avancé loo ko teg lu nekk day dem rek bu am njëriñ bu pare nga dem jigéen Ah il paraît que sa cousine est dafa nekk say parce que a na benn gueule de muy mission Elle gel envoyé mais c'est trop tard ne cee def dara instant bi ne peux def dara pour man la solution bi mooy nga dellu si ci Tu mais ngay dem sa ay cousine mu lay héberger ñu lay di la boole ay du n'importe quoi mais je si waatal man ak yow ñu ni génn bi

nañ ko jël gas ko mu xóot suur ko instant bi moom nañ bàyyi noonu rek mu sedd gis nga jànq kee waxal moo gën a garaaw bira téeméeri junni te gis nga lii nii buñ ko bàyyee ñaari nit mooy dox sañu kaw muy bira ak moom dama ko xam bu jéem a dugg sax ci lii ay problème dong lañuy ñuy indil ok amul tànk ginnaaw de man Sall dama ko bëgg bëgguma lu ko nakari nañ bàyyi rek mu sedd kooku woo ko nga expliqué bàyyi noonu rek. moom mënul nekk xalaatuma ko sax kooku dama may wax dama dama koo bëgg bëgguma dara ko nakari wëlbatikuwaat encore ne naa ko bàyyi ci kër gi léegi nag nan laay def naa ko bàyyi ci kër gi rek. mais man li nga xam ne yaa ko tegoon ak man ba man la mën naa si jàppale kii ma waxal billaahi xolal gis nga boo tegee sa tànk ci sañu kaw man a jaw lay jëm te boobaa dina am problème man tamit dinaa dugg jarul sax wax gis nga lu mu màtt lu nekk dafay dagg. def kon léegi tey ñu koo lijjanti ma bàyyi saala ci biir mu bañ koo yëg. yow garaawul defal li nga wax man saala dinaa ko bàyyi ci biir duma ko wax dara. mais Birame moom dina ma abal maa xamatul instant bi man fan laa féete bàyyi ko mu toog génne ko bàyyi ko mu toog ah xoolal rek. vraiment man Bira bi arrangé kenn. Bira li ma xamal lépp bis bu ko waxee. Bira lan la xamal. samay tànk lay jéem a dugg <laughs> elle se gourre complètement te affaire game boobu nga wax bëggoon naa laa gis sax pour dellu si ci biir ndax joob ak yow daf may neex mais seulement da doom ram li nga ma defoon fàttewu ma ko de ne xam nga li mooy sa problème xam nga fàttali ko wax day indiwaat ay wax te su ma sañoon man ak yow li ñu sekkoon c'est du passé ñu teg ko à côté mu jàll nga ñëwaat nice kon xam nga ni aw ma benn problème wala boo. fan nga loose fi. maa ngi de paree. mais n'empêche que lu ma bëgg a xam dama koy xam fu ma bëgg a dem mm-hmm. dinaa fa ñëw. naa jaar sa gàlle mais waajal ma benn weccit dégg nga